saraax la def ci xew xew lamb tey fekk fa le roi des arènes Modou Lo bu yaatu ba sunu lamb def ca moom liggéey bu mu ceey ba mu liggéey ba tax ko doon roi des arènes ci loolee la sunu lamb xëy les secrets de la réussite du roi des arènes Modou Lo loolee sunu lamb limal fa mu njëkk a duut baaraam mooy forme impressionnante xarañ loo ba mu débuté ak léegi saa yoo ko gisee forme bi di la jaaxal amul benn yoon boo koy gis naan taxawut amul doole mu am combat ñàkk combat moo ko gisee da ngay ne kii mu ngi liggéey sérieux irrégularité à l'entraînement loolee la ca teg ay entraînement am wala benn benn moniteur bu koy ŋàññ ci wàllu entraînement ñeme na ko da cay dem ba jeex te du ko mës daw lu entraînement di laaj moom roi des arènes Modou Lo da koy def fépp fu entraînement di jare bakkan moom tay na fa bos olof Njaay nag dafa ne buñ nee diw baax nañu ne ndax mbokk yaa ko wax ñemeeg entraînement bu le roi des arènes Modou xarañ Lo bu ko Pambay le coach de Rock Énergie dëggalee loolu jaadu na moom Pambay la mu xam mooy régularité faaw nga jox cër nekk gi mu nekk roi des du hasard liggéey la moom dafa daj lu metti doo ko mu doon bu nu jàllee ca Forza dañu koy fekk mu nar a dolli war année blanche le journal ba xamle mooy Forza boo moytuwul dana defaat année blanche ñaari année blanche la tegale ci saison ak ñi ñu jàppe ay potentiel adversaire am ku ci nekk am nga combat muy Sa Thiès di Garga di Reug Reug di Gouye Gui ñooñee la jàppe woon ay potentiel adversaire am ku ci jot avance mooy guy gi ak rëg-rëg bi le ñu doon wax ne boo moytuwul dana tàbbi géej ñaari mbër ya mujjee nañoo jot seeni avance waa kër guy gi ma mbir ma doon tàggee ca ñoom ba ñu waxtaan ba mujjee juboo Sénégal Entertainment mujjee na leen a jox avance diggante guy gi ak rëg-rëg officialisé nañ ko combat ba taxaw na lu waay doon jaay léegi mu lamb lamb ne wuréew a dem na gannaaw ba mu effacé Elton Giri mu nga jëm ca guy gi gannaaw ba mu freiné gis ne écurie Mor Fadam daaw a tane woon saison bii ñu génn ñu ngi amoon victoire 16 défaites ren ñu am 15 défaites am 9 victoire benn match nul loolee moo waral journal ba xam le ne école de lutte Mor Fadam dañoo daanu jël bu rëy bi la école de lutte nag leader ba guy gi moo nekkoon ca tuus ya Pape Mbaye Demba nga woon ca Espagne 50 Cent kenn gisu ko kenn déggu ko Mbaye Tine Demba ñu jàppe woon valeur sûre bu écurie bi dafa passé à côté foofee Eumeu Sène de bébé diwaan la 10 000 problème Pape Ndoye 2 ne kuréel 2 Rekoba fils jum Petit Diouf kilo mburu kayma am lycée Cheikh 2 Mor bu saakajor fils de Sam seen match nil ba booy bawol 2 la ngay seen coach ba la moo xam le mooy bilan bu bon moo nekk nii écurie bi bilan bu ren bi baaxul santul yàlla daaw li muy bon bon moo tane ren jërë ngeen jëf mbokk li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah